asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna nee naa leen saa su ne ni ngeen ñuy déggee rek defe naa tey ji ñu ngi kër Balla Gaye 2 bis bi tey ji nekk loo xamante ne tey bis bu ala doome la mu tombeeg lan le 21 juillet tey ki ngeen taxawal nii tey ji jàkkaarloog moom tey kii mooy Gackou 2 Gackou 2 nekk champion boo xamante ne kenn dootu ko lam-laame tey ci école de Balla Gaye 2 waaye kenn dootu ko lam-laame tamit ci biir Sénégal Gackou ñu ngi lay ziar delloo ziar Ama maa lay ziar bàyyi ngeen ngi sant yàlla bu baax a baax tey ji euh, le 21 juillet tey ku la xool xam ne tey ji yaram daw na tey ñu nga fekk tey buntu kër Balla Gaye 2 Gackou 2 tey bis bi tey ji lay tey ji bis bi nii tey ji di 21 juillet tey ji lan ngay yëg tey ji bis bi waa yëg-yëg bi ma am mooy tey jii nii bala gay 2 di bëri nekk suñu xarit suñu mag suñu lépp suñu chef suñu patron di bëre ku ne xam ne Balla Gaye 2 buy bëre waxuma la Sénégal waxuma la Guédiawaye wala école bala Gaye mais Sénégal gi mooy yëngu tey ñëpp ñëpp génn ñëpp a kon tey dañuy nekk si ginnaawam rek di ko pousser vers la victoire di ko ñaanal yàlla may ko ndam incha allah. tey ñu gis ngeen ay sampion ngeen géejawaay doo fa lim gàkku 2 te doo fa lim Youssou Ndour te doo ci lim Balla Gaye te doo ci lim beneen sampion tey ji gàkku 2 tey ji fan la jëm donte génn ci combat bi paas. waaw fi ma jëm moom gars wax naa ko waxaat ko comme gars nii ñi nga xam ne suñuy adversaire potentiel lañ bu ñu paree rek pare nañu waaw gars yi moom wax naa ko waxaat ko. en tout cas en tout dañoo jot dañoo dafa jot ñu gars yi may ñu sens si kaw ñu bëre xam nga di si kaw sax si ñi nga xam ne ñoom lañ maaseel ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ tollool si làmb nañ ñëw jël ko avance ñu bëre ñoom ko waaw. instant yii nii Balla Gaye tey jii lañ ko koy conseillé tey ci làmb ji. Balla Gaye 2 kenn du ko conseillé. lu tax nga ne Balla Gaye 2 kenn du ko conseillé. Balla Gaye xam na lépp si làmb. làmb sax kenn mënu xam lépp mais bu si amul bu tey jii nii boo defee 19 ans de carrière. ñun mënuñu laa conseil yaa ñu mag si làmb yaa ñu ëpp expérience li ngay bëre bëre wuñ ko li ngay daan daanuñu ko li ngay def defuñu ko ci làmb kon ñun mënuñu laa conseil dañ koy ñaanal rek li mu war a def xam na ko bu arbitre bi sifflé dina dina def li mu war a def yàlla suturaal ko yàlla may ko ndam incha allah. kontaan nañ ci yow Gackou de. kontaan naa bu baax a boo xamante ni tamit bii géejawaay la nekk Lat Dior ñu ngi lay ziar. a ko ñaanal bu baax. Lat Dior tey ji bis bi tey ji lan ngeen yëg. waa bis bi ndam rek lañ gisee ndam waaw ndam lu seddu guy di ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun ci bis ba may ñu ndam lu seddu guy ñu gis ni tey ji le 21 juillet bii nii tey ji mbëri bëri wàcce bëri ay ñoom arndoog ñëpp tey ji di ci bëri waaye tey ji dañ ne Balla Gaye 2 mooy joxe revanche mooy jox Tapha Tine revanche mais revanche bi Tapha Tine lañ jox favori lan nga gis loolu mais lu ma ci gis mooy liggéey na li mu war a liggéey loolu na kenn gisu ko si média yi ndax combat bi da koo ñor mooy may revanche tamit mais combat bi moom moo ko gën a soxla ki muy may revanche ndax daa am fu mu fu mu jugee am fu mu war a dellu am fu mu war a taxawaatee si làmb waaw géejawaay fi ne nii amuñu lenn lu dul Balla Gaye 2 daan waaw ñun am soxlawul lenn lu dul Balla Gaye daan di ko ñaanal ndam lu sedd guy waaw pare na lu ñu war a pare te tey jii moom Tapha Tine mu yéex day daanu mu gaaw day daanu bu soobee yàlla. tey bu aj bi est que Balla Gaye la mu daan def dana ko def mooy aj bi mu dox sa kaw. lu raw loolu lay def bu ajee loxo bi wàccee loxo bi dina ko duma door koy daan maa la dee loolu bu la neexee nga yóbbu ma vaar. Tafatin ponkal la de. Tafatin ponkal la dinañ daan ku ñimewul neexul bëre ñimewul Balla Gaye ñimewul ñimewu ko. Tafatin mi ñëw arène nationale yuuxu bat yuuxu bat ba ba affaire ne bëm foofu noonu micro yi yëpp loolu la la loolu la ragal. kontaan naa ci waaw kay. yi ba léegi day metti nga ni. Tapha Tine day sóob ñemewu ko dañ koy duma daan ko tay Tapha Tine tay 19h ay 19h 20h ñu duma daan ko. mais booy gis ngeen booy ñu Tapha Tine toll. non Tapha lu mu mënti toll lijjantiwuñu ko Tapha Tine lijjantiwuñu ko dañ koy daan 2-0. gannaaw bi gàkku deux jàlle gannaaw ba beneen champion jàlle waaye nee naa la mbër mii ni kenn dootu ko lam-lame ci biir géejawaay nee naa la Mbagnick Kaïré am nga foo jaar champion bii am na fu la jëm mbër maa waa ziar. waaw maa fay di la jox sa wàccuwaay di la wax ni asalaamaaleykum wa rahmatulah di bëggee ñëpp daal waaw. à part loolu noonu dañ la félicité ci victoire bi nga xamante ni génn nga ko. waaw waaw merci di la wax ni ñun mënuñu suñu boroom moo mën rek di ñaan suñu boroom suñu boroom yàlla nañu yàlla nañu yàlla taxaw tay tamit bi ñu taxaw keroog yàlla nañu taxaw tay ñu am ndam ci combat bi ñu jëm. tey ñu gis na tey ji la 24 juillet bi Balla Gaye 2 war joxe revanche Tapha Tine lay jox revanche ñëpp ne làmb yomb Balla Gaye fi mu war a joxe revanche teel na yéen ñi nekk ak Balla Gaye 2 di entraîné ndoo ak Balla Gaye 2 am lu bari loo xam ne yéen yéen a ko def ci Balla Gaye 2 ba ci open press bi nga xam ne mujj ko def gis nañ ne Balla Gaye am na kàddu yoo ñaax na ko muy maanaam sa combat bi nga jóge ak sa victoire bi nga jóge waaye yow da ñëw doon magu géejawaay comme ni ko Lirou Diane doonee tey ji Balla Gaye 2 te tamit xam nga làmb moom isam lu ma la def nañ quoi nem bu ñu amul xaalis amuñu si dara sax mais def nañ ci làmb loo xamante ni marqué nañ suñu empreinte def nañ ci làmb loo xamante ni àdduna yëpp ñun xam nañ ñu si làmb kon loolu ñu ngi koy sant yàlla quoi. waaw ñu ngi koy sant yàlla wa tey jii bala Gaye 2 tey jii lan ngeen gis ne tey ji war na ko mën a bëree tey ci contre moom Tapha Tine tey. waaw non Balla Gaye 2 koo daan ñaari yoon da ngay taxaw nga déglu ko xool lu mu indi mais doo ñëw sànjaafi si kawam yoo ko am yaa ko daan moo soxla soxla woo. Mm-hmm. waa teel jël sa temps. noonu la fa demee. mais bala Gaye 2 bi nekk ci moom bala Gaye 2 gi nekk ci moom est-ce que doon mbër buy taxaw di xaar mbër. non non ko war a xaar lu mu doon doon gaynde combat tay bi combat xaar la parce que combat koo ñaari yoon da nga war a taxaw nga déglu ko. est-ce que Balla xaar. non Balla Gaye day xaar incha allahu rabi lamb ji tay moom isam loo ñun liñ bëgg rek la Balla Gaye 2 def waaw liñ bëgg rek lay def yàlla ma suturaal ko may ko ndam voilà noonu la fa demee yéen a ngi jëm stade. waaw ñu ngi nii dem stade waaw. kon tey bu ngeen demee tey la ngeen di gën ñax ñaax supporter. non bu ñu demee supporter nañ ànd a dal ak ànd ak calmement te xam ni carrément kat is na ñu suñu mbër xam nañ ko te suñu mbër wóolu nañ ko di ko ñaan rek suñu borom may ko ndam noonu la fa demee. kontaan nañ ci yow. waaw bu loolu weesoo dafa am sama ñaari copain yoo xamante ni dañoo sonn ci bis bi ñëw soutenir ma si <clears throat> jàppale ma si ci bisu Balla Gaye 2 bi mm-hmm. waaw. xalifa suma doom ki suma xarit la suma lépp la kii tubaa xéewal waa di leen wax ni leen xama nit moom amul ku dul lu dul kilo la yëg waa ki la yëg nag xama moo la sonal waa di leen ñaanal ñoom comme que dañuy yëkkati seen xéewal di ko def si ñun yàlla na leen yàlla yombalal lépp waa àdduna moom loolu la ko quoi noonu la fa demee waa nijaay dégg ngeen kaddu yi nga xamante ne mbër wax na leen ko mu nekk loo xamante ni yéen kat yéen a ñëw jàppale ko soutenir ko tey ji ci bis bi moom doon na ni koo xamante ni nit ku gore la waaye doon du fàtte te kaddu yi nga xam ne yëkkati ko tey jëmale ko ci yéen tey ji lan ngeen ci yéen aouzu la hawla wala quwwata illa billah gannaaw ban sant yàlla julli Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur ah, ñi ngi ñaan yàlla dugg si bismillahi rahmaani rahim si bis bi génn si alhamdulilahi rabbil alamin Balla Gaye mu jaar fa ma doon jaar waaw ah, bi daje ñoom ñaar ndax Assane Diouf fa woon comme ni ko mbër waxee mu daan ko jël bu rëy suul bopp bi ñu bëriwaat esaat mu duma ko daan ko bii mooy leeral bi wan ko duma sa morom te si kattan yàlla dana ko duma dana ko daan si barke suñu yaakaar tey ak ëllëg sëñ Abdou Karim Mbacke borom ni ndeeg sam borom Touba Bogo maa ngi sant sama sama boobu baax a baax a a di ñaan ndam gu rëy te dinañ ko am incha rabi mbër nag moom incha xale bu ñemee na ko jël ne xale bu ñeme na ko jël. am na si loxo yu wóor. non champion moom entraîné allah te xale bu bu préparé sa combat 2 millions ñu def si 4 millions. mën nan ko te yéene nan ko xale bu def 2 millions si préparation ñu def 4 millions si moom. mais est moom ku dugguñ tool nii li def Madye Ngaye est xale. xale yi leen xale yi ñaan ay jën kay rek yooyu na ñëw Liss Ndiago booy yi tàng nan tàng na ñëw. pare nan ñoo leen dàq xeex moo dàq xeex moo dàq bëre moo gën a ñeme. yéen daal ala Tafa Gueye de daal ngeen ko bëgg a def xale daal bu fi rek la wala ngeen. xale ñu dum bokkuñu yoon de Tafa ay daan ay ay kii la de booy wow kong la sax bokkuñu ñoom ñaar bokkuñu si yoon ku am 21 victoire bokkul ak ay Tafa Gueye yi bokkuñu. dëgg naa dëgg waaw 21 victoire la am. dëgg naa wax ji te mbër yi daan ak ak ñee bokkul booy bee Maroc la dem préparé ba oos ñëpp teg seen bët mu daan ko ñaari jël Tafa boo ñu daan man mii sax yaa gën a xam bokkuñu combat yi bokkuñu Tafa ak kii comme Angleterre ak pomme mbooy bu ñeme na ñëw soo préparé 2 millions ñu préparé 4 millions. fol loo ci wax. waa delloo ziar baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp nag di ñaan bis bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ñu àggale ak alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom yàlla itam may bàll ndam lu sedd guy ci barke alxuraan karim am nañ ci yaakaar te gëm nañ ko. kii nag moom comme ni sa waay wax rek moom moo demee noonu mais mënoo def 28 combats. 21 victoire 6 défaites benn match nul comprendre nga xam nga nekk ci ay diggante bu xat lépp xëy na peut-être ñàkk mooy la ak yooyu rek mais dañuy ñaan yàlla yàlla saafara lépp ci kàttu yàlla mbaaxam li des lépp ci kanam su moom def ci tawfeex ndax combat mu amaat nag doon combat boo xam ni xam nga combat coow doon combat capital lay doon combat xaay doon comme ni Touba waxee rek loo ci def ci benn incha allahu rabbi dana dem tribunal bi. ci kàttu yàlla mbaax ñu gis ni combat bii nii dañoo joxoon ma ñu koy def surtout ak kii maanaam euh, favori ñëpp ne moo gën a nekk xale kii mag la xam nga day maanaam booy bi da ko yóbbu retraite mu jàpp booy bi ko dóor ko ba ñëpp yaakaar ne da rey mu jàpp ko daan ko jël boo xam ne xalaatuñu woon ne mag dina ko def gone est-ce que tey guddi gi ñu toll nii gone est-ce que après nañ pour jël sawaay non xam nga gëm-gëm la sawaay day entraîné loo xam ne waxu ko kooku su amee jàppale tuuti day dem ku dul mbañ kere sax boo ñaa mën na ko daan ku dul mbañ kere sax buñ ko joxoon jéen sax day métti ci jéen suñ ko joxoon jéen kere ci moom day métti moom mais xam na làmb nag moom comme dafa nekk kumba am ak kumba amul ndey nga nekk ci diggante boo xam ne peut-être coow moo lay yóbbu fenn fi mais dana la boole koo xam ne yow boo tëddee bëgg di nga xam ne ki la boole moo la man mais boo ñaan daal la champion la wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal daal lis carrière am suñu boom def tawfeex def ci sutura xam nga lépp doon ay ndam. kontaan nañ ci yow. la jaajëf ma leen war rek ko. kii defe naa ne am na loo xam ne kenn dootu ko naatable man ak ñoom la woon fii nii bu yàggul nee naa leen bala Gaye 2 sa préparation combat am dafa am ñoo xamante ni ñoo koy jege ak ñu ko dul jege ñu koy jege rek laay xëcc nag di leen laaj Fall maa lay ñu ngi lay bu baax. bàyyi ngeen jàmm. sant Serigne Touba. tey jii di bis bi nga xam ne mooy le 21 juillet Balla Gaye 2 war a dem arène nationale pour joxe ji revanche tey jii lan ngeen gis. ndam rek. ndam da leen gis si kàttanu suñu borom. wax dëgg yàlla làmb ja xaar nañ ko yàgg na. Hmm? def na si lépp lu mu si war a na boxe na physique na def na lépp te gëm naa ndeyam ndam tey 2-0 la. tey ñu gis ne Balla Gaye moo daanoon moo joxe revanche mais ñu bari dañ na favori bi Tapha la yow lan ngeen ci gis si waaw ñëpp dañ ne Tapha Tine la mooy favori waaye bu arbitre sifflaay lépp luñ ko jox moom Tapha dina ko jël teg ko ci kaw loxo Balla nga ni. lépp luñ ko jox Tapha ba mu jël làmb ji bu arbitre dina ko yëkkati teg ko ci teg ci loxo Balla Gaye 2. waaw tey ji Balla Gaye 2 tey bu arbitre ne prime est ce que Balla Gaye 2 la mu daan def mbëri moom lay def tafaatin mooy arbitre ne prime mu ñëw song la jàpp la duma la daan la. bu ñu bëree mu duma ko bu ñu xeexee. est ce que tafaatin dina bëri. ah tafa mooy xool rek mooy xool ndax dóorante bi la bëgg ba daanu wala bëre bi la bëgg jàppante bi ba daanu moo ciy xool rek. Hmm. waaw bu ko ci neex rek moom la. su arbitre ne prime Balla Gaye 2 lan la war a def. day mépp wuti tafa lamb yi du yàgg yàggul. est-ce que bala Gaye 2 instant yi guddi gi ñu toll ni nii nii nii ak combat bi fi combat bi toll est-ce que jot na pour Balla Gaye 2 arbitre bi mu ne day dem song. non da koy song mëninam la. nga ni. mëninam la. waaw. Amar moo décidé dafa décidé moo tax. dafa décidé waaw daa décidé. nee naa leen fa góor nekk itam jàppal ne jigéen a nga fa waaye tamit xol tamit defe naa yàlla suñu borom moo ko moom gox bi nekk nag moo di kër Balla Gaye 2 yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi tey jii ñu gis ne tey yaa ngi bunt kër Balla Gaye 2 Balla Gaye tey jii war a bëri ak Tapha Tine tey jii le 21 juillet bi tey jii lan nga gis ne tey jii Balla Gaye 2 tey war na ko pare tey ci combat ah xanaa mu daan Tapha rek loolu rek lañ koy ñaanal. moom mhm. mais tey jii gis ngeen ñu Tapha Tine toll. ah gis nañ ko léegi nag. ah, ah ragaluñu dara. mais Balla Gaye 2 instant nii nii ak ñu Tapha Tine ko daan ko. nga ni. mën na ko. yow wëlu nga Balla Gaye de. waaw. Ah. waaw wër gis ngeen di yow gis ngeen di Tapha Tine tool. bañ a ko gis. keroog Tapha Tine ñëw ci arène nationale tey micro yuuxu ba stade bi nar daan. ah daa tegle Balla Gaye neen daa tegle kay daa tegle. est-ce que Tapha Tine est dafa tegle. dafa tegle kay njaxas. la jiital si biir moo tam mu gande. Ah. waaw est-ce que kon am la doole. amul dara. nga ni. Balla napp na ba pare jël na fitam ba pare. nga ne Balla Gaye de jël na Tapha <laughs> fitu Tapha Tine ba pare. baax na non mooy man moom essayé moom li jëm lu Balla Gaye rëdd tey jii moom moo koy joxoon te bu ko joxoon bu ne ko daggal day dagg. père maa ngi lay ziar. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. bàyyi ngeen am jàmm. waaw ñu am jam bu baax a baax. per namu naal de. maa la raw yow ci kër gi nga bokk. la fa woon foo woon daan. waaw waaw jàpp daan ñibbi rek ci kattanu sëñ Fallou Mbacké. mais per tey ji le 21 juillet bii tey ji ñu xool ne tey ji Balla Gaye 2 tey ji revanche ay joxe te arbitre bu musaan ne prix Balla Gaye dox sa kaw tey ji Balla Gaye tey ji bu arbitre ne prix que lam daan def tey ji dana ko. loolu lay def bu arbitre ne fu tafaatin ne dina ko fekk jàpp ko daan ko dem ñibbi ci kattanu sëñ Fallou Mbacké ñun la ñuy bëggee bëgg ko jiital suñuy mbir ci yoonu Serigne Touba Mbacké waaw di nuyu na waa Tamba di nuyu waa kéedugu di di nuyu waa Tambacounda ak Bira ak Bira benn dëkk bu ma nekkan waaw gis naa ne jàppe ci combat bi ak di nuyu waa Kédougou ñu tamit Salimata Ubaji waaw di nuyu daal tund woo yëpp maa ngi leen di nuyu daal waaw ak côté Moussala bi waaw maa ngi nuyu ñëpp ña ne xam nañ seen bopp ñun jàppee ci combat bi rek yal na ko yàlla ak sëñ Fallou Mbacke àggale bala jàpp ko daan ko ñibbi may nuyu ñëpp nag waat Tamba nag maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax jàpp nañ ci combat bi taxawu nañ waaw li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxoy sëñ Fallou Mbacke mu àggale ko waaw ñu ngi dem arène nationale de. waaw ñu ngi dem arène nationale da commencé nañ sax nii stade fees na. Balla feesal na ko. gën a Balla Gaye de. ko. mais tey ji bu at bi ne prix Balla de tey ji la mu daan def moo tey yaa ngi may séen est-ce que tey ji loolu la ñuy xaarati. waaye déggoo li ma la yaa ngi may séen dafa yomb xam nga lan lay def yaa ngi may jàpp lay man may jàpp kontaan naa ci affaire barke sëñ Fallou da bu arbitre bi nay firi rek bala dem na ci kawam du fa xaar yaa ngi may gis yaa ngi may jàpp lay wax yaa ngi may jàpp lay wax dóor duma daan ñibbi kon tey yaa ngi may jàpp lay xaar te nee naa ne kon tey ji yaa ngi may jàpp defe naa ne solaga boobu génn te maa leen ko jox kon gars yi léegi-léegi ci kanam